joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi lu yow Fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug ay gi na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga ngeen li yàlla hubbu fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariyatu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa def xalifa di moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu mooy xalifa moom yoonu Makka new leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem ma tama dalli fa taxaw makaama dem mi nan langale fa Seex julli jumaa nan ca biir Samsam kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ak ndam ma tiital mu ne su la ngañati suukar ma sa bari jël na ndam la Bamba ni fallu laay fallum yàlla alaaji Mbàkke bu jaayam Bamba di baayam fallu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamum yaay borom kon bismillah teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara soxna na soxna jaara moo di dey ba mi desi di beñaat teeram wa de foo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew wayu te wayu te foroon te foon nga jama ma pita sellal yow yàlla jox barke soxna jaara bu defan sukk ak cuune duñu wan ki ñuul dolle da xëjul cim nen soxna jaara a wóolum masula julli te jàppul masula julli te wildul doole kay sangam tuubal daldi wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxnante njaayi mbokkam saalam so maaram loolaa wal sëñ gaawaan sëñ ban may jaamam jam sayla jam baatil bambara kami kaadam cog ngeegol a jébbal kaalanta dem rootil donga yi xayu toolam soxna jaara moo sellal donga yamu daa rootal seen ba moo niital sawru faal sawru faal moo jëfal ba muy leeral moo tax dëndam yaa nguy jib tépp naa jëf jël bamba mooy néeg ba Seex Ibra di lamp bay leeral ab la déem ay Maamoor Jaara Maamoor Jaara ab la déem ay Maamoor Jaara yéena jaayi Bamba yéena moo pëg pay jëf moo waral moom Bamba ab jullit la muy jëf yéena waral kër ak buuram yéefali la muy jëf yéena waral kër ak dóoram moo tax ab jullit war nay jëf te boole koogi yéena loola mooy ngir ma dee leen jëf te boole koog yéene muy doo jëkk a karaam ni soog kaay leenam kaw sa la daanaane moo taxoon musul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan kaw sa ak lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu rang këy ngeniil ndax ngoolaan mu di alal muy wool ay jabar ak naa jooju doom dama waar tànk doom demal banu fi soxna saa doog waar soxna jaara yoom nga te yaa gore maam soxna ba sun maam ji yor borom nga te fi jafe na cib jaam ma sala dox di waxtaani soxna jaara ma sala dox di waxtaani ma sa di seetaan ma sa wax moo taraxal saytaani ma sa dox caag raw sax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 ngeen ci bu faw mu bal géej ngeen wolof new daay tàkk tàkk bàyyi kuréel bamba moo di ci ba muy tax daay di tàkk bàyyi kuréel dogan ci ba daay di sax bay jëfal di bàyyi kuréel kuréel doon te mooy daay di tàkk dem ko kuréel ñax gën càll ba sax daay di tàkk dem ko kuréel kuréel amoon ba ti xol doo tax ne maa di kuréel kuréel xam la mu doon kon mu yuux naa werereer waaye xam-xam jafe na ndax wala bëtam dafa jër soxna jaara mi war naa tax jigéen dafa xaadam moom ki nangu woon xaadam te si gël kalmaaram soxna jaara mi war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel jureemu di yaaram soxna jaara mi war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox jureemu di yaaram soxna jaara mi li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daanu dellu pay kuy jëf keer ba mu teeloon maa ba fanaani caat moo di sàkkati weñ yi war na kànkaar saate surux yam defal maa moo waral tabax jiital ak ba sang kaa ba gaa tuuba tuuba surux yam defal maa moo waral tabax jiital ak ba sang kaaba gaa nga tuuba tey laa waral njàngaay leeg bu sëriñ yi xeeñoo foofu daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maam moor moo waral kabe suukar koog ya moo sun kaas yi nguur daa puutar njalla mu daa jox maam moor moo waral mu rii sow koy doo baabal soxna jaara moo jar bew pal bu ciyeen doo baabal ñeenu faab liitar boole suukar ak meew noonu soxna saa yore tiitar wal gamu daawal moo tax daal yëpp naa kunkan boole kunkan ak kàndang bu njëlee ñu naa biñ walam gaa waral mboolem daal iiru joxul joxi soxna jaara moo mën a wal ñëpp a ngi luxul luxi loo wal jéggi daaroo ngi fal yu luxul soxna jaara moo amu xew ñëpp a ngi fan soxna jaara soxna yaa ngi moon jana ñax na ñaxi bu sa baali moo ayet tey ñëpp a ngi jàmmax-jàmmaxi keroom daa daw moo tax sun saxaar gi naa rëg ñu jox paasam boo du naa ding dang njaay ko gëti na joolooli génne leen paase waaju ba gërim gaal gaangi def la paasam ba njaay ko gëti na leen paasi waaju ba gaal gaangi def la paasam bu sa baari bi soobee yàlla may were kaanam atraak bu sax laa dem sañoo waat ci bekkaanam yaa ngi teem jaawaral mboolem dong yey bërët bërëti mu ndigal ji bee mooy raw gaynde ti narit nariti toggam gaawaral taal yi takk soxna jaara mii war naa tax jigéen dafub xaadam moom ki nangu woon xaadam te si kël kalmaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ati xel si dee mu di yaaram soo i mi war naa tax jigéen sanal góoram yekk sey te di ko jox jigéen mu di di yaaram sama jaaree mi li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yii ni daanu delli pay kuy jëf keel ba mu teeloon maa moor ba fanaani caat tawte moo di sàkkati weñ war na kànkaal saate surux yam defal maa moor moo waral tabax jiital ak bëtam bu ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tuuba tooyam defal maamoor moo walte ba giital ak bëtam bu ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tey njàppam laa waran jàngay leeg bu jëriñi xeeñoo foofu wa tamuy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maamoor moo waral kabe suukar kooge moo di sun kaas yi ndax nguur puutar njalla mu daa jox ma moor mooral mu rii sow koy doo baabal soxna jaara moo jar dew fal bu ciyeen doo baabal ñeenu fa ab liitar boole suukar ak meew soxna saa yor tiitar wal ga mu daawal moo tax daar yëpp naa kunkang boole kunkang ak kàndang bu njëlee ñu naa bing walam gaa waral mboolem daar iiru juxur juxi soxna jaara moo mën a wal ñëpp a ngi luxi waaw waa jéggi daaroo ngi fal yu luxi soxna jaara moo am xew ñëpp a ngi fan naa fa jaara soxna yaa ngi moon jana ñax na ñaxi usa baali moo aya tey ñëpp a ngi jàmmax jàmmaxi xerum daa daw moo tax sun saxaar gi naa rëg rëg boo soxla ñu paasam boo du jéem naa ding dang na joolooli génne leen waaju ba gërëm gaal gaangi nu def la paasam bàcc njaay tëggati na jooloon yi génne leen paasi waaju bëgg a dem gaal gaa ngi nu def la paasam bu sa may were kaanam aturaat bu soxlaa dem fañu wàcc be kaanam yaa mboolem dong yey bërët bërëti mu ndigal jibee raw gaynde ti narit nariti toggam gaawaral taal yi takk ba jamaa taama dalli ba makaama dem nan langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir Zamzam kaare waa Makkata yaa bari ndam yaa jaloore ak ndam a tiital mu ne su laa ŋaññati yaa di suukar maa moom sa bari ndam la bambani Fallu laayi fallum Yàlla ala ci yom Mbàkke bu jaayam bamba di baayam Fallu di biyaaram yaa jalaway yaa jara joxi daaya yaa jara jaamu yaay borom mi la kon bismillah yi teema jóg way fi ngeen seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat te yaram wade foofu ndaw soxna jaara bu jigéen kon mi ne fi tey duñu beew waaye nga te waaye nga